waaw en direct fii ci Touba ancien garage ñu ngi nii dox wutali rond-point ba police yi police nag daw nañ ba dem ñoom nag ñu ngi dox wutali rond ba police yi en direct fii la ci garage waaw ñu ngi wutali rond-point ba daanaka ak 500 mètres ak rond bi police yaa ngi noonu di ruux police yaa ngi ne daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw waaw police yaa ngi noonu di daw waaw gaa yaa ngi nii waaw police. fii en ce moment soit tu vois les transporteurs qui sont en grève ñoo barré la route. waa E-Media leen fii muy euh, sotti Tivaouane depuis euh, presque une heure de temps oto mënul dem oto mënul dikk donc euh, ñu taal fii jeunes yi éparpillé wu rek un peu partout en ce moment ah les forces de l'ordre ñëw nañu mais le jeunes ils sont sont très nombreux donc dañuy xaañ xeer aussi pour euh, ne pas exposer leur voiture